daa ñu ngi leen di nuyu mbokk eh, yi safoo di ñu topp ci leeral bi leeral point net eh, bu ngeen ñu gisee nag fi ñu eh, nekk ngeen xam ne ñu ngi Cambérène tey jii bien sûr samedi yem ak fukki fan ci weeru février atum 2024 mu nekk ndoxteelu appel bi nga xam dañu koy amal la communauté Layène at mu jot euh, ñu koy màggal euh, donc bu ngeen gisee nag fi ñu taxaw ak euh, yëre yu weex yi ndax buñ nee laayeen wax yëre yu weex xam ni ñi ngi ci ubbi ubbite gi nañ koy defee saa su ne équipe bu leeral di ànd ak yéen di leen ci gunge ci événement yu mag yi ci suba ba tey ñi ngi fi noonee tamit lañ koy def wéy fa seenee rek yëkkati suñu micro dénk ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw tey jii ci cérémonie bi taataan seen ay kàddu ñu wax ñu naka la ñuy dundee li nga xam moo di appel bi sëñ bi ñu ngi lay. ça va man Malaar. Malaar Malaar. man Malika Malika. waaw waaw waaw. Leral TV yaa bo ñu Muxtaar la ñu ngi ziar naka waa kër gi yéen a ngi ci jàmm laay Mamadou Alassane ak Séni da ngeen def Dakar Médina ah, rek bëgg rek bëgg rek bëgg rek Alassane kenn maam li maamu mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom wallaahi maam li maamu mënuñu koo fay yàlla rek kañu ko mën a fayal laay maxtaar ñu lay ziar bu baax di lay ziar yéen ñëpp jaa ngeen jëf salaamaaleykum. waaw ah, naa def si. ah Pape Omar Diop. waaw. man fan laa jógee maa ngi jaaree géej. waaw. ah. waaw at mu jot moom dañ koy amal wax dëgg yàlla. màggal gi dafa neex. at mu jot moom ñëppay ñëw sama waa kër sama xarit yeeg ñëpp dañuy ñëw. parce que fête bu neex la. bàyyi laay mooy rasul laay moom yàlla nañ ko yàlla fayal. wax dëgg yàlla moom ñëpp. ñoo nekk benn mu saxal leen baatab laay laay la laa ñëpp laay la ñu sant tey yow mi sax ñëw nga fii tey laay la laay rek ñëpp laay la ñu sant moo tax daal affaire bi neex na lool kontaan nañ ci trop bu baax. waaw. ah. mu des ak dëkk bi tàng lool waaw waaw mu tàng lool wax dëgg yàlla moom am ñëpp moom wax dëgg la laay mu taal. waaw kontaan nañ baax kontaan nañ baax jërëjëf laay. jërëjëf salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay. salaam Ndeye Makhtar ñu ngi lay delloo ziar laay laay laay Ndeye Makhtar laay maa ngi jógee maa ngi jógee Grand Yoff. waaw maa ngi Grand Yoff ñooñu appel comme ni ko laayeen yépp di defee di wuy si woote Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam tey ñu njëkkee ko fii ci Cambérène di ziar euh, Seydina Issa Ruhulaay euh, comme ni ko yàlla junjee ci Alxuraan wax ni. Seydina Isa dina siwaat moom mi yàlla yëgaloon ci kaw asamaan mu wàcc ci kaw suuf yàlla dogal fii ci soowu jant fii la wàcc ci kaw suuf mu am ñeneen ñu koy xaar feneen waaye yàlla dogal na fii ci Sénégal fii la wàcc euh, yàlla waxoon ko ci junj ko ci Alxuraan moom mooy wuutu baayam à l'âge de 33 ans yàlla dogal ci Seydina Isa à l'âge de 33 ans la wuutu baayam waaw saa loolu la ñuy màggal fii ci Cambérène fas yéene ko yeggale fële ca ca Ngor incha allah ëllëg ji yoor yooru wootee Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam jërëjëf laay Maxtaar papa ñu ngi lay salaam maa ngi tuddoo Aliou Anne man fii laa dëkk. Laye Mokhtar kon tey comme yéen a dalal euh, ñi nga xam ne ñoo communauté Laye comme chaque année ni ngeen koy def. non dëgg la ñoo dalal gan yi man maa ngi bokk euh, man maay coordinateur comité local appel bu fii Cambérène comité local. bu Cambérène waaw. donc damay def tournée nii pour xool ce qui ne marche pas pour ma jéem a collaborer ak ñoom quoi remédier à à des difficultés. jot ñu ngi sant y a de l'affluence certes mais toutes les les autorités sont là hein autorités étatiques yi ñu ngi fi les sapeurs sont la la police est là et ils sont en de fonctionner comme il se doit vraiment. nit ñi gisuguma fi benn problème boo xam ni daal am na ku ma ko ñëw pour que ñu remédier yu mën a soumettre yëpp remédier naa ko donc on est toujours là-dessus donc on suit euh, ce qui se passe. et on avec nos équipes qui le terrain pour faire ce travail. Euh, chaque année lu jëm ci wàllum sécurité fii ci appel bi dafay mat mais ren mu euh, tase ak benn contexte bu xaw a doy waar ndax lu jëm ci wàllum politique bi est-ce que tey bàyyi ngeen xool euh, bàyyi ngeen xel loolu ba gën a renforcer lu jëm ci wàllum sécurité. effectivement bàyyi nañ ci xel parce que démb rek démb la ñu commencé indi sécurité bi même le matin la ko commencé indi mais avec On a vu qu'il y a un peu de réduction d'effectifs, mais on essaie de, jouer avec les effectifs par des rotations pour que tout, toute la sécurité puisse être assurée. En tout cas, jusqu'à présent, on sensibilise les gens sur ce qui est sécurité, parce que la sécurité, c'est de la sensibilisation d'abord. Mais on a aussi prévu au cas où. C'est pourquoi, bon, je ça, même les, les, les, les sapeurs et consorts, ils, ils sont hors de portée des foules. comme ça bu ñu paree rek ñoom dañuy mën a dem mais la sécurité aussi y en a assez y a un nombre assez qui est là donc que j'ai noté ici y assez nombre ah am na au moins plus de plus de 200 policiers qui sont là plus de 200 policiers et euh, se suscitent d'avoir des renforts mais ils sont là sur le village et en train de faire la sécurité. maa ngi tudd Aliou Anne. Aliou Anne waaw. man maay euh, le coordinateur de du comité local de l'appel à Cambérène dégg فتبارك الله كل من يريد القوة من غير يلا كيف بيعمل كل ما كنت وايد أقوال من يلا يلا Thank you. delloo ziar Nday Aret Gueye Kaolack laa jógee waaw démb laa ñëw démb laa ñëw billaay kontaan macha allah billaay walaay ñëw ci bis bi nga xam ne rek di rafetlu bis bi kontaan ci ba pare respecté nañ gan ñi toppatoo nañ gan ñi te loolu mooy l'essentiel billaay neex na trop macha allah waaw kay. salaamaaleykum rahmatulah ziar naa leen yéen waa télé bi di kontaan si macha allah appel moom ñu kontaan trop di ko def macha allah yal na yàlla ma ñu fekk waxe dew ñu bëree bare lépp lu ngeen si si yéentu yàlla na ngeen si jot macha allah yal yàlla defal jàmm dafa ko moo leen jul kontaan trop si yéen macha allah. sëñ bi. maaleykum salaam wa rahmatulah. Jibril la. laay Jibril laay. waaw fan laa jógee appel si jandeer jandeer njëgën dëkkuma Malick Ngoone Ciss at mu jot ma ñëw. bi dafa yokk wala dafa. yokk appel bi dafa nekk loo xam dimension bi day yokk chaque année day gën di yokk woote bàyyi du dellu gannaaw dimension bi at mu jot day gën a yokk léegi chaque année day gën a yokk ñun dañuy gën a gis suñu bopp si aw woote bàyyi bi moom koo xam ne Seydina fu mu jaaroon fu ne bàyyi na fa trace. su dul ngaa xam njëgën gi moo jóge la def 9 jours tey soo demee jandeer xewalu jandeer yëpp a nga njëgën grand ah. ñu ngi lay ziar ñu ngi delloo Mamadou Baro. la Matar. Uh-huh. waaw mbégte rek kontaan tey. laay appel lu ne la duñ mbégte dañu bëgg di wax sama yoon duñ mën a wax ndax mbégte bi bànneex beeg taw féex bi ci am ñun fii la ñuy rootee macha allah ok jërëjëf. yaa boo ñu ah Anta xam nga mosuma <laughs> maa ngi tudd Anta Ndiaye waa cité gendarmerie Jaxaay waaw. non maa ngi soog a di ñëw nag maa ngi soog bi nga ñëw rek. waaw kontaan naa gis naa lii yëpp kontaan naa. dëgg yàlla nañ ko te ay déwén yu bëri rek suñu borom bàyyi waat ba si kanam waa merci beaucoup jërëjëf. yaay maam ñu ngi lay. maa ngi fay. laay laay. yëf yi moom yëf moom neex na torop ja nañ ko teewee na gën a déwén waaye laay Seydi neex na moom yal nañ ko teewee na gën a déwén fekk ka tarafet fekk na jaajëf waay Cambérène moom neex rek laay moom ma doon waxtaan laay laay ñu def laay maa sant sant yàlla rek yëmbal laa jóge yëmbal laa jóge sant yàlla rek ñëw ziyaar si rek sunu woote maam bi yàlla nañu yàlla jàppale ñu commencé ko bisimilahi rahmaani rahim yeggalee ko alhamdulilahi rabil alamin di leen jëfal teeru bi rafet na bërëb bi taaru na ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla nañ ko fekkee at yu bëree baree bare bare barke bàyyi laay war mee maam Seydi jërëjëf